Euh, Birama merci encore une fois euh, comme ni ko doyen waxee léegi gis nga waxtaan moo war jiitu ci lépp foo waxtaan amul lekk dara du dem parce que ah. état bi li mu commence li mu mujjee mën nañ ko njëkkee parce que boo xoolee Ngor Wakaam Yoff ay village traditionnel lañu mhm. doo ñëw rek nga bëgg na yow da nga bëgg ñëw rek ne lii nga war da ngay waxtaan ba déggoo bu waxtaan amul lii rek lay indi donc école lañ ko bëgg a def gendarme mais nañ toog ñu waxtaanee ko xool nan la ñuy trouver terrain d'entente xëy na buñ ko defoon euh, à l'avant lii yëpp du ci am donc di marché aussi li nga xamante ni moo am ngoox fan yi passé te bu buñ ci jëlul solution bu amaatee dina gën a métti parce que li dafa nekk koo xamante ni du dellu ginnaaw bu ñu xasee ba jël décider dara rek dañuy foncer ba jeex donc nañu waxtaan ñu trouver terrain d'entente école lañ ko war a tabax école baax na gendarmerie baax na mais nañu xool lan mooy intérêt wu ñi nga xamante ni ñooy population bi nga xamante ni ñoo dëkk foofu. surtout loolu noonu parce que gisoon nañu ko fi. Ndingler amoon na fi. Mm-hmm. te problème suuf dafa nekk loo xamante ni dafa yàgg te dafay gën a continuer. génération yi di ñëw waaw mbaan ah? aussi mi ngi noonu génération yi di ñëw. tamit c'est ça sera la même chose. donc il faut que ñu ñu xool nan lañ koy régler dès maintenant. xamante ni dootul am di mas ak bavure policier yi nga xamante ni am na ceeg yooyu noonu yëpp donc di masawu daal bu baax a baax waa Ngor di wax président na woon ñëpp ñu toog waxtaan ñu xool na la ñuy régler lii nii une bonne fois pour mu jeex